saaru yoor yoor nag moo yàlla da ko tàmbalee ci baatub yoor yoor boobu di ci waat kon moom itam ci saar yi yàlla tàmbalee di waat la bokk saar wi boroom xam-xam yi wax nañ ci ay wax lu tax mu wàcc eh, ci gën siiw ci seeni wax mooy dafa am diggante boo xam ne wax yi bi leen wàcc ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam jibril bi laan ñëw ci moom di ko wax yàlla nee na daa ab diggante bu yàgg ñëwul ci moom ba yonante bi sax xaw cee am ak jaaxle ba yenn yéefar yi sax tàmbali di ñaawal yonante bi sallallahu di ko wax ne daal eh, sa boroom bi nga daan jokkal de moom bane la dem sa dema dem sax ba am ci ñoom ñu koy wax na ko sa seytaane ci daal ñëwal seytaane si la daan ñëwal muy jibril léegi gisatoo ko bànn la moo tax noppi nga léegi waxatoo dara yonente bi xaw ci yëg ak xat xaw ci amuk jaaxle ba loolu amee nag ci la yàlla wàcce saar wii tàmbalee ko nag ci diwaat mu tàmbulee ci baatub wadduha wadduha mooy maa ngi waat ci yoor yoor maa ngi giñ ci yoor yoor eh, li ñu koy waxee jamono ji nekk lu tax yàlla di tàmbalee ay waxam léeg-léeg ci di waat ngir bëgg ñi muy waxal bàyyi xel li muy wax déglu ko bu baax xam ne itam nag kii li muy wax ñor na ko kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi yéefari tàmbalee di ko di ko ñaawal di ko wane sa borom bana la jibril ñëwatut amatu jotatoo waxyu yàlla wàcce saar wi nag ngir dalal xelam tàmbale ko nag ci waat ngir yéefar yi doon wax xam ne la ñuy wax nekkul lu wér yàlla ne wadduhaa maa ngi waat ci yoor yoor yoor yoor mooy bu jant bi yëkkati ko bi feeñee ba yëkkati ko tuuti tàmbalee foofu ba bëccëg di waaj loolu yoor yàlla waat ci am na it ñu wax ne duxaa fii maanaam bëccëg gi lay ame la tax ñu wax ko mooy yàlla da ko dandi leeg baatub layli wala lay muy bëcc muy guddi waaye nag yoor yoor moom li ci gën a wér mooy bu jant bi fenkee rek ba yëkkati ko tuuti ba bëccëg yàlla na maa ngi waat ci yoor yoor wala layli ak ci guddi isa saja su demee ba dal bu demee ba dal ba guddi gi sori ba lépp na tekk maa ngi waat ci ñaar yooyu ne maa waddaaka rabbuka sa borom bàyyiwu la de wa maa qaala te bañu la sa borom bàyyiwu la te bañu la itam nekkul ku la bañ walal axiratu te alaxira ji nga xam ne fa la ñëppi mujj xayrun lakk mooy gën ci yow fuuf mu ne uulaa ci àdduna ji ngeen nekk am na it ñu wax ne walla axiratu yàlla mi ngi ci jublu sag mujj sa mujj maanaam balaa ngay faatu sa mujj xayrun làkk mooy gën fuuf menel uwalaa ci li jiitu sa dund mooy bala ngay faatu daal di nga am xéewal yu rëy yu màgg yu la yàlla eh, wërsëgale fii ci àdduna kon ñaar yëpp mën naa nekk wala alaaxiratu sa sa mujj wala sa alaaxira xayrun làkk mooy gën fuuf menel uwalaa ci sa àdduna wala sa la jiitu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sa boroom dina la jox ba nga kontaan ba nga bëgg ba nga sant ko gis ngeen ne foofu yàlla yootika rek la wax dina la jox waxul lim koy jox lu mu loolu da ko waxee noonu ngir mu làmboo mboolem luy xeetu xéewal loo xam ne nit dina ko jox wala boog des na ko jox nit yootika rek la wax mu lépp loo xam ak loo xamut loo xalaat ak loo xalaatu ci xeeti xéewal yàlla dina la ko jox yootika rabbuk dala koy jox fa tarda ba nga doyal ba sa xol sedd ba nga doyal sëkk te loolu nag bu ko yàlla waxee yow yonent bi war nga ko gëm ndax alam yajidka yatiiman fa aawa ndax yàlla fekku la ngay ab jirim bu baayam faatu amoo kenn ku la toppaloo toppatoo fa aawa moom yàlla mu dëkkoo la féetewoo say mbir boole la ak ñu lay toppatoo tàggatal la eh, sa maam Abdul Muttalib mu faatu mu tàggatal la sa baay bu ndaw Abu Taalib mu faatu mu tàggatal la sa soxna Xadija ba ñu la yàlla jàppale tàggatale saxaaba yi itam kon loolu ab laaj la boo xam yàlla da koy laaj ngir saxal ko ngir saxal ko ne ko daal lii lu am la. alhamdulilah kay tii man fa aawaa ndax yàlla fekku la ngay ab jirim mu defar say mbir wa wajadaka daallan fa hada ndax yàlla fekku itam ngay koo xam ne ku jaaxle woon nga mu dalal sa xel daallan foofu baatub daal li muy tekk mooy réer waaye nag boroom xam-xami tafsir yi duñ ko fi réer réer gi nga xam ne moom lañ xam mooy ku réer eh, nekk ci yoonu mooy yàlla mbaa nekk ci di bokkaale yàlla ak yu mel noonu déedéet daallan fii di ko yàlla waxee jëme ko ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ngi jublu xel mu ñàkk dal ci sikk sàkk su mett su nekkee woon ak itam ñàkk xam charia bu leer laata yàlla di ko yónni eh, gisoon na leen ñii moom liñ nekk du dëgg ñu ngi jaamu ay xëram di jaamu ñeneen ñu dul yàlla donte moom mosu cee bokk waaye nag taxu woon mu am jeneen diine ju leer ju mën a teg tànkam ju mën a jàpp kon loolu jural jural na ko ak jaaxle jaaxle googu nag moom la yàlla jublu ci baatub daalan yàlla kon dalaa fekk nga nekkoon ku ku ku jaxasoo am xel fahada mu gindi la andi la lislaam andi la charia bu leer naññ boo xam ne ci ngay jàpp di ci woote te képp ku ci jàpp texe am na it ñu ne daalan fii li muy tekk mooy berugum na aw nitam ndax fekk doon dund ci euh, société boo xam ne dañ doon bokkaale yàlla di jaamu ay xeeram di mooy yàlla waaye moom yonent bi sallallahu alayhi cee bokk moom daan beru arab yi nag dañoo baaxoo woon buñ gisee ak garab gu sax ci digg ab euh, désert boo xam ne genn garab néew fa dañ koy wooye daal la garab googee daal la mooy garab la goo xam ne moom dana cundum ci àll nekk tegtal ku ko seen xàmmee ko euh, daal la boobu nag moom la yàlla jublu ci yonent bi sallallahu mooy berugum berul aw ñoom ñëpp nekk ca ya nekk ca sàngara sa nekk ca mooy yàlla yi moom mu daan beru fee du ca ànd du ca bokk loolu moo tax yàlla tudde ko baalan am na ñu wax loolu ba tey wa wajadaka ailan fa aghnaa moom yàlla moom moo la fekkoon nga nekk ku ñàkk koo xam ne yoroo dara fa aghnaa mu joxla am koom ñaari maanaa la fa aghnaa amee mooy mu woomal la ci def sa xol ngay doylu ba loo am lum néew néew mu doy la loola maanaam fa aghnaa da koy tekki waaye itam fa aghnaa mooy mu fekk la ngay koo xam ne ab jirim nga sa bàpp faatu na sa maam Abdul Mutalib faatu sa baay mu Abu Talib faatu waaye mu boole ak Xadija mu jigéen ji woomal eh, ba eh, mu lay suturaal nga dund ci teraangaam ba nekkoo di laaj kenn mbaa ngay sarxu kenn kon wa wajadaka ailan moom yàlla moo la fekk nga nekk ku ñàkk fa naa mu defal la ngay ku woomal doylu boole la ak itam ku woomal mu lay suturaal ginnaaw nag dema ne noonu yàlla fekk la ngay ku jaaxle mu dalal sa xel fekk la ngay ku ñàkk mu woomal la fa amal yatiima kon rek waaye képp ko gis muy ab jirim baayam faatu fala taqhar bu ko gëdd mukk bu ko not bu ko not maanaam bu ko di noggut dee ko toppatoo loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam na lool ay jirim moo ñi seen waajur wu góor faatu wax na ci ay xadis yu bari bokk na ci xadis yooyu bu mu Eh, man de fa may nekk ëllëg ci àjjana maak ñi daan toppatoo ay jirim di leen dimbali dafa mel ne li baaraamub sànnikaay bi maanaam li baaraam bi ci digg bi sute baaraamub sànnikaay bi daal daal tàlla ñaari baaraama bi daan ne sama daraja ci na ak darajee ñi daan toppatoo jirim yi di leen dimbali dafa mel ne ñaari baaraam yi liñ sutantee rek mais baaraam bi ci digg bi ak baaraam sànnikaay bi loolu da ko doon wax ngir soñ jullit ñi ci ñuy dimbali ay jirim ndax loolu tuyaaba ju mag a mag moo ci nekk day tax ba bu ëllëgee nit ki maqaamam rëy lool ci àjjana yàlla moo ko ko digal fa amal ma jirim yi fala taqhar bu leen di not mbaa nga leen noggatu mbaa nga leen toroxal wa ama saaila ñiy ñëw ci yow di laaj itam di sàkku ci yow ndimbal fala tanhar bu leen gëdd bul def comme ni yéefar yi def ku ñëw ci ñoom di leen laaj ñu lay gëdd aka toroxal aka tuutal aka sewal ba nga rus am kersa yooyu loolu bu ko def wa ama saa'ila képp ku ñëw ci yow di laaj jox boo amee bu fekkee amoo nga wax ko kalima tayiba baat bu rafet kàddu gu neex koo xam dana bégal xolam sax bokk mu dem waaye bu ko gëdd mukk wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith xéewal yi yi nga xam ne moom la sa borom xéewale dee ko waxtaane dee ko feeñal bu ko feeñal ngir di ko bàkkoo mbaa nga koy njistale déedéet waaye dee ko siiwal ci nit ñi ndax ngir nit ñi roy ci ndax yow ab wootekat nga da ngay woote kon gépp xéwal gu la sa borom xéwale muy lu baax war nga koy siiwal nit ñi di ko yëg di ko xam ndax ñu la mën ñu la ci mën di roy ndax ku la ci roy nga am ci tuyaaba ji yow itam kon sa xéewale borom yi de ko siiwal di ko waxtaane kon ci tënk bu gàtt lii la saaru Ad-Duha di tekki moom itam muy saari woo xam ne ci saari wàcce Makka la bokk Euh, yàlla tàmbale ko ngiñ comme ni mu tàmbalee woon saar yu ko jiiti woon mooy wal fajjiri ak wa shams euh, ngiñ yooyu yëpp li tax mu tàmbalee ci mooy da doon wax ay yeefar yoo xam ne euh, daa ko seen xeetu waxin bu ñuy wax lu leen ñor lool mbaa ñuy wax loo xam ne bëgg nañ ko bàyyi xel dañ koy tàmbalee ngiñ moo tax yàlla wax ñoom ci méthode bii asalaamaaleykum wa rahmatullahi